ah ñu ànd kook équipe pédagogique école bi yëpp nag ñu war ñu présenter benn activité bu ñuy wax le jeu kon mbokk yi weddi gis bokk ca nañ leen xuus dem kër yaa Amina asalaamaaleykum mbokki Thiès benn dëkk ñaari gaar asalaamaaleykum mbokki Prestige TV ñi ngi leen di wax ne yéen a ngi seen émission Prestige éducation ànd koog seen rubrique tey après école après école nag tey mi ngi ñëw ci benn école bu ñuy wax école Kër Yaay Amina Kër Yaay Amina nag mi ngi nekk cité ouvrière ah ñu daal di doxantu daagu rek ànd ak suñu maa ni dem ba kër école Ibrahima Meng ñu seeti directeur bi asalaamaaleykum directeur. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw dafa mel ni tey de yow yaay ñu dalal fii ci cité ouvrière.

collectif ak xale présenter animation dina len présenter parole des enfants. très bien di len faire nak école bi ñu maternelle franco arabe la manam dañ fi jàngalé arabe di fi français de ngeen ko jour bi tay non la def plat bi dina riche trop ñu and kon dem directeur. et la famille. arba. Hamsa خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة فاء فراشة فاء فراشة فاء فراشة أجمل عشرة أجمل عشرة دفينا دفينا دفينا دفينا دفينا دفينا دفينا دفينا ñëpp comme ça dafay tëb dafay tëb dafay daw dafay daw dafay daw dafay daw dafay taxaw dafay taxaw dafay taxaw dafay taxaw dafay nelaw dafay nelaw kukurikuk anaw kukurikuk voilà léegi ban mos def ñu def o o la def ñëpp nañu préparé wu. Oh! oh. oh lele. oh. oh lele. oh lele tita wanga. oh lele kasa wanga. oh lele tita wanga. oh lele kasa wanga. léegi mom lañ doon wax na réveil musculaire dañ doon def envolé ak xalé yi manam yé yi nga xamante mom moy sen sen seen ndax xalé yi dañuy yewu parfois suba gi sen yaram yi bañ donc il faut ngeen defal leen benn activité bo xamante day yé muscule yi yé yé xel yi comme ça ndax ñu mëna a jublu léegi ci liggéey bi comme xalé yi def nañ sen échauffement ba paré kon dañuy dox ndànk dem jublu ci liggéey bi nga xamante moy activité bi ñuy présenté tay moy le jeu léegi donc dama bëgg ñu ñu démarrer ci activité bi jeu bi ma bëgg def ni mi ngi tudd grenouillère aveugle jeu bi Euh, maa ngi koy def xam naa ni moyenne section laay choisir mix soit une fille ak euh, benn garçon loolu laay xool léegi jeu bi damay jël deux éléments ma takk euh, seen bët yi léegi su ma ko takkee après damay ramasser fii quelque objet soit mën na nekk objet bu nekk 4 wala objet bu nekk 3 3 mu nekk 6 léegi danaa teg ñaari panier Euh, côté bu nekk dafay am benn panier léegi deux éléments yi dañuy nekk euh, ci tuuru cercle bi pour wër objet yi ku njëkk euh, jeexal élément am rek kooku mooy nekk première léegi jeu bi ci moom lañ bëgg a démarrer nii. pare na. pare na. may leen ko fit may leen ko fit. Lamine Diallo Mohamed Sokhna Mohamed Sokhna waaw waaw Mohamed Mohamed Mohamed gauche gauche Mohamed. derrière derrière. soo doxal tuuti doxal. Mohamed arrière sa ginnaaw sa ginnaaw Mohamed. sa ginnaaw. voilà aca Mohamed sa ginnaaw. sa ginnaaw oh, oh, ah. dugal ko gaaw. voilà aca très bien Mohamed avancez encore continue. a baax a baax très bi ñu dem ci beneen bi. ay eh, directeur xam nañ ko. Ah, xam ni mu tudd. Tabchir. la ilaha illallah. la ilaha اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه Naam Tat Asare Tatra Takbir Allah Allah Allah Tat Da votor presa Canto ao sul E uma cena Hello, hello. How are you? I am fine. How are you? Hello. good evening good night. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Every day, every time. Every day, every time. A green hill pot. Good morning, good afternoon, good evening, good night. bi ñu doon jàngal li nga xamante ni mooy lenn li nga xamante ni gaaral na ko xale yëpp dañ siy jëlaat leçon leçon bi ñu siy jël mooy ne ay jikko ay valeur yoo xamante ni képp ku mu nekk si yow ba ilaa yow mi diin kenn mënu laa jàdduloo te jikko yooyu ñu ngi ko jëlee ci ki nga xamante ni buy jikko yi di féete kaw moom moo leen féete kaw muy Seydina Muhammad mu ne yonent bi nekkoon na ci ay jikkoom daawul fen mu ni ku daan wax dëgg la aminan ku wóor la woon daawul jël jëfu jaamur waaye xaliman ku lawet la woon daawul lor kenn nee na foo ko fekk nag mu tawaa di an day wàcc boppam nee na yaxtarimul kibaara di war maal mag ñi waaye di yërëm ni mu teeti ndaw ñi ñoom nag ñu ne suñu yeneenti boobu ku rafet jukko la jukko yooyu nag ñu ni ñoom nag moom la ñuy jukko woo kon dañ leen sant bu baax a baax taj bi yéen asalaamaaleykum directeur Eh, yow directeur de collectivité éducative nga tay ñi ngi woon fi ci école Kriya Amina nga ñew nga suivre li nga xamanteni mom moy li activité biñ fi doon def tay muy le jeu ah légui ñu lay laaj yow nga ginaaw bu nga nuyo ba paré nga wax ñu lan muy jeu. waaw jërëjëf jaari euh, euh ma ngi nangu ci loolu ni won na leen gërëm sant leen ci laaj bi ngeen ma laaj manam lu jëm si sen télévision bi

Fini actuellement euh, dafa que j'ai bi war am origine war am période war am moment ak temps bu koy def ak durée ba pare mu am codification également il faut j'ai vu d'emblée nous ko war a jouer yëpp xam dégg maam nan lay commencer nan les tribunaux ak lan moo ne ci biir su ko defee bu ñu ko xamee

lolu nek na loo xam ne dana éveiller ay sens ci ay déplacement am ak ci kii ak aussi fexé gagner parce que lo gis rek lu lu ñuy def rek gagn bi mo ci am solo mais ki ci gagner aussi wala xamné ni bon ñak mëna am réflexion yu motax ñu gagner ko. Mhm. parce que boko délo delloo encore liñ ko ko gàññewoon duñ ko wat encore parce que dina farlu parce que xalé aussi dafay réfléchir ci nga xamni lolu mo tax dégg mam jotul nangu ki bi parce que bu toogee ya un feedback bu ñëw ci mom en à une fraction de seconde 3 secondes dina xamni li suma ko defoon kon du jël sama sama sama fulaar bi donc lolu lepp suñ ko da fay travailler ci esprit xalé bi donc euh, mo xamni fo la fo bi dafa am norme am lu muy démé am nu ñuy gagner ak du ñuy perdre so perdre aussi nga xamni ni bon ni jeu bi non la tey day tax aussi xalé bi nangu ni jeu bi kat perte na parce que boy da ngay gis mak sax day perte di siis wala di ki parce que du du du fair play alors xalé bi déjà dès le départ dina xam ni lii dafa war gagner da dafa war a perte ko am fu gañ am rek perte amna donc mën ko nangu c'est-à-dire mën ko digérer donc lolu moy côté bobu euh benen bi.

par rapport à l'âge bu mu jafe ba xale bi euh, du ko mën trouver mais aussi bu mu bu mu yomb ba nga xam ne bi su keel ci loxoom na ko xawa a touti mu def effort parce que war xamni effort moy tax mu mu mën a euh, gagner mais ci bir lolu euh liñ ci gis surtout ci affaire euh, kii boobu le son avec la désorientation waaw tapé chaise bi nga xamni ni dañ koy tapé côté donc ça l'oriente au fur et à mesure de tourner en rond et de voir exactement sur quel truc il faut aller bien que nous ngi qui euh, takk ay bëtam ci biir aussi un espace dégagé Il n'y a pas de danger bon il y a que le jeu seulement à tuer. veiller également au déplacement des enfants par rapport aux obstacles qui sont sur le sur le sur le terrain donc c'est ce que gis loo xam Nous veux dire que dind bi

loolu liggéey liggéey bu ñu def la mais xalé bu tok di ciop rek deg dégg maam nanguut a foog dara parce que bal boko ko ay xalé gis ko foowuñu laaluñu ko y a quelque chose. parce que si tu veux si tu veux une équipe amène tes ballons dans un quartier laisse-les là-bas demal nga tok fële léegi gisu ñëw taxaw même boo leen kiiw sax dañ koy il faut ñu dóor bal bi wala ñu jéem ciokas pour qui, yoy bon soo nee parti d'aller football les bayila fa donc c'est parce que c'est leur domaine.

parce que dañuy ñëw groupe ci groupe ba pas ci dañ koy il faut mu am fit il faut mu il faut mu mu mu mu c'est-à-dire que baña a gawa aussi affaire doole la ay la la comme ça ñuy pour ku donc euh, fay former nit ci euh, courage xam nga am na jeune foo bu fa tolloo moom ci boppam day yaakaar ni asamaan sax bu dajoon a gaynde du dellu gannaaw parce que dafay yaakaar dafay wóolu boppam ci mba mbiru doole donc yooyu yëpp nag ay courage yoo xam ni daf fay daf fay former am na loo xam ni également eh, rapidité lay rapidité lay laaj bon lépp dañ ciy former xale am na yoo xam ni bon plus simple encore ay këm-këm xaw xam ngeen comme déet eh, këm-këm <laughs> këm-këm ñaari xotti gerte lañ daan jël

suñuy suñuy jeu euh, à l'africaine dañu daan formé ci li nga xamni lu soxla parce que temps yoy bon soxla non soxla won nañu dolé soxla won nañu fit soxla ñu adresse soxla won nañ gaaw parce que bon temps yoy on vient de la chasse bon donc lolu mo rogat nak ba agsi fi ba ñu moderniser ko indi yeneen ci yo xamni peut-être ñun faté nañu bari ci nga xamni mom moom lañ doon def suñ suñu tàngu mam yi jërëjëf kon kooku mom moy directeur Iba Diouf directeur de collectivité éducative nek tamit ki nga xamanteni mom moy président de l'ASS régional bu Thiès kon tey moom moo nekkoon fii tey gunge ñu añu ànd ak ñëw école yaay Amina di wax li nga xamanteni moy jeu kon lim ci wax leer na xamna ni lu duuf ci cin li duuf ci nak yépp xaju ci cin dañ koy wo rek mom plateau spécial mu ñëw wax ñu jeu parce que mom jeu spécial itam jërëjëf directeur. merci beaucoup merci à tout le monde. waaw directeur mbay nga kon tey ñëwoon nañ sa école gis nga fi gis yëpp ñu lay wax ni waxtu bi fi mu toll nii dañoo dab ana lan mooy sa kàddu bu ak lan nga jàpp ak lan ngay tegtal moroom directeur yi nga xamante dañu yor ay préscolaire comme yow. Euh, ñu ngi leen di dalal di leen tatagal personnelu école bi administration bi les parent ak xale yëpp kontaan nañ torop torop torop si seen teewaay euh, li ñuy mujjee nag mooy ni waa euh, Prestige Thiès TV ñoo ngi leen sant di leen gërëm. muy xanaa xanaatul Thiès TV muy euh, télévision bi nga xamante ni dana taxaw ci service xale yi waaye tamit wane lenn ci li nga xamante ni xale yi ñu ngi koy yëngu ak école yi ba pare amuñu xaj ak seen li wane ne am ñu xaaj ak seen mooy ni ñun suñu école dafa amaale islamique waaye nag safoon nañ ko wane ni ñoom. xale yëpp lan fi yemale. léegi ki ñu taxawal nii nag moom mooy madame Ndour nekk présidente APO e école bi comme moom fekkee na suba ba léegi li ñu fi ñu koy jox kàddu rek mu wax xalaatam daal di remercier. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu waa Prestige TV di kontaan ci seen teewaay di leen dalal. ndax ñun amuñ lu dul suñu doom yi en tant que présidente APE moo tax ma teew fi tey te nee xale mooy avenir yi ëllëg kon nag xale li ñuy def ci moom dañoo war a def ci moom defin bu rafet ndax nee nañ xale dafa mel ni ciment bu tooy loo rëdd ci moom rek mooy des ci moom. te gis nañ ne ñun bi ñu àndee suñu doom yi kër yaay Amina ba tey ñu ngi leen di inculquer ay valeurs yoo xamante ne valeurs yu am importance la ndax xale yi bu ñu màggee dinañ doon ay royuwaay ci société bi. dinañ nek ay xalé yo xamanteni ne dinañ roy ci ñom ndax gis nañ ne fi valeurs ñuy jàng ñu ngi leen fi inculquer ay valeurs yu important yu am solo ñu ngi leen di jàngal seen Nous ñu di aussi éducation de base ñu ngi di jàngal nu ñuy comporter wo société c'est très important loolu am solo la ci xalé yi ñun nak nañ ndax kat yi fi nek ay valeurs yu xarañ lañ gis nañ li ñuy def suñu doom gis nañ suñu biñ fi ñëw par rapport ak léegi kon nag dañoo kontaan kontaan ci seen télévision bi ñëw bëgg a fësal lii xale yi di def fii ak liñ fiy jàngale kontaan nañ ci terewul nag tamit APE bi xam nga ne mooy ñun ñooy jàppale xale yi ñooy jàppale daara ji daara ji tamit soxla nu lu ay affaires yu bari yoo xam ne tey jii amu ko ndax ñun amuñ lu dul suñu doom yi ndax yonent bi salaahu salaam nee na bala ngeen a tabax jumaa yi tabax leen daara yi ba pare ndax éducation. bu amul ci dëkk du dox éducation mooy base yi lépp kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay di leen ñaan ngeen jàllaleel ñu suñ message ñu jàppale suñu daara ji incha allah waaw kon mbokk yi lii lañ leen jëlaloon kon ci kër yaa ami préscolaire bi nekk cité ouvrière dalaa ñuy dem nag ñu neen di ñoom dañuy remercier ñi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk muy maîtresse Abi Konaté maîtresse Ami Khoule maîtresse Ya Seyda Awa ak euh, ki nga xamante ni moom mooy directeur bi Ibrahima Mbengue ak ki nga xamante ni moom lañ fi fekk muy parent d'élève di a Gueye di kenn si ñun di remercier présidente APE bi di remercier directeur Iba Diouf ak ñëpp ñu ñu àndaloon sama équipe technique bi maa ngi leen di nuyu Prestige Thiès Prestige ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu leen di jox daje ba beneen yoon merci. Euh, Soxna Diady ñu ngi lay sant macha allah programme ba riche na rafet na lii lañ leen jëlee woon Kër Yaa xanaa di jox Soxna Diady rek mu tàggatoo. Eh, ak eh, mbokki internet yi. waa di wax ne mbokk internet yi yëpp eh, ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant fi nga xamante ni tey moo ñu dalal muy directeur Mbengue bi nga nekk mu xam ne moo nekk ci école Kër Ya Amina ak directeur Iba nga xamante ni moom mooy ñëw jëmmal bés beeg directeur Mamadou Gueye di sant aussi moniteurs yi nga xamante ni ñoo nekk Thiès nga xam ne Ibrahima Diam moo leen fi représenté ta Abi Konaté ak maîtresse yi nekk ci école bi yëpp di leen wax ne nag seen émission après école lii rek la wane li nga xamante ni ginnaaw classe yi moom moo fi nekk